Pape waaw moom laa bëggoon wax parce que Sensei uh-huh. vraiment dama koy rendre hommage uh-huh. parce que déjà dafa am benn idée bu brillante ah affaire bi moom la dama ciy jàpp rek euh, pour fexe ba nga xam ne nit ñi gis nañ ko et puis mettre un peu les moyens techniques euh, mais aussi liggéeyam ak ak ak xalaatam parce que euh, dialogue yi nekk ci si euh, si série bi. Mhm. ak yëpp moom moo def conception bi. c'est lui la tête et puis ñi ngi ñi ngi euh, maa ngi xalaat aussi développer yeneen projet ak ñoom. parce que mhm. Mhm. si au niveau des idées. ils sont très forts donc. Euh, ah, ce n'est que le début. parce que dinañ mën a def ay affaires yu bëri. voilà merci beaucoup Sensei. waaw voilà message bi. pour Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi xaar clando enfin demain à 17h. bijou oui sensei di béyaa bi di jaar dafa am lu am solo ma ndax dafa ne sensei ak doomam bi uh-huh. xaw ma fan la ñu jëmee uh-huh. maa lay tontu uh-huh. tontu ma sensei maa ngi lay dégg fi ñu moo gën fi ñu leen jëlee neex na dëgg la <laughs> au pays des intelligence émotionnelles ou des émotions intelligentes uh, ok ok jeex na tonton Moustapha lan ngay wax euh, sénégalais yi ñuy seetaan parce que yaa ma mag moom man loolu wóor na ma ah donc ci nu dis euh, suba ñëpp ak lay xaar 5 heures 30 17 heures ci ngoon ah 1er janvier léegi lan ngay wax euh, sa moroom xale yi seetaan actuellement yeewu la. <laughs> waxal rek waxal lu la neex wax leen lu la neex surtout xale yi wax leen message bu la neex waxal lu la neex. maa ngi di wax kay ñu xaar Kalandoo beneen bu bees ak beneen bis bu bees. dégg nga lii. <laughs> voilà <laughs> donc Pape Cheikh damay bari ma gërëm tuuti <laughs> euh, ñoo xam ne vraiment dañoo jàpp aussi ci liggéey bi. Uh-huh. voilà di si euh, jiital monsieur Ba. Uh-huh. TFM ak euh, Soxnaam. Uh-huh. Adja si. vraiment ñu mention spécial ndax. ba vraiment dañoo jàpp ci affaire bu baax a baax a baax noonu la mel voilà donc euh, ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen gërëm bu baax di gërëm aussi école bi may jàngale ndax la bokk moo ngi ne taxaw Adama Soumaré ak école bi may jàngale ah. justement mu nekk groupe scolaire da baax Malick donc maa ngi gërëm daal ñëpp quoi ak ah. sama ñetti bébé ah. ah sama ñaari jarbaat ak sama benn bébé bébé Ngóone bébé Fama Eva la. Euh, ak ak kii bébé Eva. Linguère voilà. noo tudd. sëñ Cheikh. Serigne Cheikh. noo tudd bébé kii de man la en Mohamed Mohamed d'accord Mohamed kii papaam moom mooy président dojo bi. Ah. Mass Ndour ma koy gërëm bu baax. d'accord kii aussi papaam sama xarit la bu baax. Uh-huh. Uh-huh. Mor Gueye bijoutier vraiment moom aussi dafay jàpp ci liggéey bu baax a baax. Uh-huh. kii moom sama doom la ñëpp ñëpp sax samay doom lañu. voilà mais léegi Moustapha dama ko bëgg a présenté benn xale. voilà euh, ñoom ñaar ñoo ñoo ñoo xew nag ah. ok waaw dama ko Moustapha kaay ma présenté la benn xale bu benn xale bu baax. wàcc ok ma présenté la benn xale bu baax. ñëwul kaay jël xale bi ah jaajëf waay est-ce que xam ne nga kii di yéeg ci escalier yi wax ma rek kii mooy kan. Hmm, Aïcha Koné. foo xamee Aïcha Koné. Petit Gallé. moom moo gagné Petit Gallé. waaw waaw mais accueillir ko Aïcha ñëwal yëg. voilà on l'applaudit en même temps. ne soyez pas jaloux. <laughs> mais noo gisee xale bi. ah mën na woy tamit de. waxuma woy bi. xale bi. bal ngay def waay. <laughs> waa léegi yóbbu ko installé ko mu ñëw mu dem toog fii parce que yaa ko gën a miin fii présenté ko présenté ñu ay su ko ne mu dem. moo fi soog ñëw de mu miinu gu moo fi. <laughs> kii de yow est-ce que doo moromu Assane Ndong. hay Père Assane Ndong paa bële taxaw na la ci ginnaaw paa bële di liggéey TFM est que doo moroomam. <laughs> moo mag. mën na nekk sama maam sax. <laughs> voilà tàccul leen bu baax merci joxal joxal micro bi Aïcha bonjour Aïcha Koné félicitations kaa ñu dem fii lii nag moom lañu ko jox. Euh, ci euh, seen petit galet elle va se mettre là voilà toogeel nii. ay bébé waaye tàccu leen Aïcha Koné waaye Aïcha sa trophée la tudd xaw coupe diis na de yow li xaar dañ la koy téyel. <laughs> et puis elle est toute depuis depuis depuis keroog euh, bi nga bi nga bi nga gañee seen petit gàllé noo koy dundee. xanaa kontaan rek. Mhm. da rus yow mbaa du woy nga gën a mën ko wax. mën naa ñaar yëpp. d'accord lan ak lan nga am ci euh, seen petit gàllé. ko li nga gagné yëpp. li ma gagné yëpp. waaw. am naa terrain. terrain. ak. Euh, sponsor yi tamit joxe nañu ay xaalis. ay xaalis. Euh, ak chambre à coucher. ak chambre à coucher ak yeneen ak yeneen. ak yeneen ak yeneen. voyage bu mag boo xamante ni bëgguloo ñu ko wax waaye man damay ànd <laughs> yow de pour filmer la. alors euh, moom elle nous a marqué ci fin bi ah parce que moom mooy gagnante bu seen petit gallé Aïcha Koné elle nous fait ñëw set si ñu tey et puis dafa tombé ak beneen ay Koné ah mu tombé ak turam kooku tam di euh, diva bu mag yàgg représenté continent bi ah. waaw euh, donc ñu koy féliciter ah ci mm-hmm. seen petit gàlle vraiment euh, def na liggéey bu rafet et mm-hmm. moom surprise la woon mm-hmm. parce que man mi nga xam ne euh, ci jury bi laa bokkoon man au début joxoon naa ko ba peut ay quart de finale mais moom dafa dafa denc li gën a li gën a baax ba fin bi après mu ñëw surprendre ñun ñëpp vraiment c'était super yow moom da ngaa bañoon xale yi mais non yaa tudd Bouba nu kii seetaane na yow moom da ngaa bañoon xale yi kan man da nga bañoon xale yi waaw mais xam nga xam nga sa doom bu nekkee sa kër. su defee lu mu warul def doo ko euh, wax dëgg. ah qui aime bien châtie waaw mais xam nga rek des fois comme xale lañu. Hmm. te dañuy nekk ci compétition. il faut ñu wax leen dëgg kon tegu leen ko rek ci ay affaire xale affaire de compétition ah. donc euh, gis naa ni loolu c'est important damay génn si biti ñu naan yow yaa kii di et puis moom laay wax ni <laughs> ah. man su ma naree def benn affaire. Ah. te defuma ci sama empreinte. ça ne du baax ko <laughs> allez ay sokkone du ñu bëgg nga woyal ñu nag léegi nga defal ñu acapella bu. non yow yaa koy aw de. voilà ñuy waxtaanaat waaw ay ci demal ma aw la. dañu mel ñu yegg si. xoolal fii ñu jóge num sori yoon bi guddoon na teewul ñu xuus ba yegg si naan waat na duñ dem fenn. Ты gi zognifa Bore dide farbam bach Bravo! Kwa kwa kala? mais ñoom ñu ñëw sax. waaw venez venez venez. non nañ ñëw venez venez. kay ak nii nga déguisé woon nii pour changer de kay. ñëw leen comme ça ñu génne suñu ay bagages léegi nii. alfi euh, fan la suñu euh, parce que tey comme jour fête la euh, da nga ñu proposer dinde farcie ah. waaw. ci 2014 bi Aïcha. Mhm, mhm.

ñëwee comme ñun suñu waree def benn sax. Mhm. ah excusez mhm. ah. mhm. waxaatal li nga waxoon loolu waaw yooyu da ci baax. <laughs> waxaatal sama lu baax. donc euh, comme ni ma ko waxee Pape Cheikh. di remercier dorin Gueye. bi ma indi fii ak Bouba Ndour bi ma jox confiance am. Mhm. mais tamit yow Pape Cheikh yow mi ma dalal. mi ma accueillir mhm. euh, di ma xelal. Mhm. di ñu jox ay idées yoo xamante ni su gi su nit ñi gisee benn. Pape Cheikh mooy nekk ci ginnaaw di joxe ay idées wam di joxe toujours pour ñuy andi plus de perfection ci li ñuy def Pape Cheikh. donc ñun sunu ay recettes rek la ñu andi mais li ci ginnaaw yëpp yow yaa koy coacher. donc euh, di la remercier. di <laughs> di remercier équipe bi ñuy àndal yëpp Pape Cheikh ñu nekk ay nit yu baax nit yu mhm. généreux mhm. donc euh, comme niñ ko defee woon ci suba rek ñëw ñun tamit def suñu rétro andi nañ fi ay euh, mini croissant au saumon mhm. defar nañu ay mini pizza Pape Cheikh parce qu'il faut rappeler que plateau boobu nga defar da nga def cocktail yu bëri yu bëri mais genn gi yëpp li ñu jot li jot a pare yëpp buuba ak buuba ak <laughs> <laughs> lekk nañ ko Pape donc li fi des rek <laughs> moo fi des mais buuba ak bijou ils moo jël recordu lekk Oustaz donc Pape Cheikh dend yi ñu ngi ni pare c' est pas des dents sax finalement dama jël poulet. poulet ok pour gagner plus de temps. waaw donc euh, ñoom ñooy génn ni dommage pour les frites parce que fii dafa bëri ngelaw. waaw mënuma defar frites mais bon dañuy déguster ak ñëpp ah ñi ñuy seetaan seen wàll ngi ci. su ngeen mhm. mënul lekk ñun dinañ leen lekkal seen wàll. waaw euh, xanaa di leen souhaiter rek une bonne année. pour euh, anticiper. Pape Cheikh alors il faut rappeler que Alfie mënul mënul ñëw ba fii parce que dama ko takk comme fii dafa ngelaw dama ko takk ci bant bi noonu damay bañ mu naaw quoi alors Aïcha Koné fan nga jaar euh, actuellement yaa ngi am yooyu préparé lan la la ñoom Tata Ngoné wax yëkkatil micro waaw. Euh, maa ngi préparé dem États-Unis. wee. ak ah! ah! ah! euh, le 10 aussi maa ngi préparé sabar pour sama fans yi. Aïssa ak lan Aïssa ak lan. loolu ah am nga terrain non. waaw. super <laughs> donc da ngay dem États-Unis te loolu c'est magnifique mais pourquoi États-Unis pourquoi ñu war ko yóbbu États-Unis pour mu jàng foofu ak am yu mu fa def. waaw Pape moom laa xam nga xale yi ne ci seen Petit Galle. Uh-huh. amaana dañuy way. Uh-huh. mais même au niveau des études. Uh-huh. dañuy jàng bu baax. et damay profiter aussi ci occasion bi. pour wax que ni. vraiment Sénégal aussi. Euh, damay gis ci dans la presse. des fois ñuy bind ay ay articles yoo xam ne c'est assez pour man c'est assez méchant. Mm. xam nga nañ ñu bàyyi nit yi ñu liggéey. seen petit gàlle c'est une réalité. Mm-hmm. vraiment xale yi bu ñu jàngee année bi yëpp. Mm-hmm. ah pendant les vacances ñu ñëw foo. xam nga vraiment mais mais wax fa dëgg yàlla. Euh, suul suul ker moom du ko du teree feeñ quoi. Mm-hmm. waaw et puis beneen affaire moo bëgg a wax sans dugg si si détail. moom mooy xale euh, da nga koy jàngal suy gagné mu gagné dans la dignité mais aussi buy perdre. mu perdre dans la dignité xanaa amul concours fecc. voilà mauvais mauvais perdant moom baaxul donc euh, xale yi ñoom ñëpp benn lañu. ñëpp a gagné ñoom ñëpp a gagné kenn gars du Aïcha Koné rek donc dañ leen di jàngal ay affaires yoo xam ne ëllëg même bu ñu màggee mhm. lu lépp lu ñu mën a dugg seen àddina bu amee échec wala mu am réussite aussi ñu ñu am ko dans la dignité voilà ça c'est très important et puis et puis je reviens encore ci li ma wax sànq ah, nii euh, nañu nañu nañu ñu dimbali rek ah, ñu ngi jëm ci 2015 bi euh, teen bi quand même ñaan leen nag wax dëgg yàlla ndox mi gën di ball ndax teen bi télévision Futurs Médias la xam nga boo ci dee sangu di ci def yëpp bul ñaan mu deey nag dëgg dëgg voilà donc ñu ngi leen di euh, feddaliwaat kóllëre yi ce qu'on va faire ce qu'on va faire euh, euh, happy bu euh, Pharrell Williams on va mettre ça comme ça ñu euh, fecc tuuti pour yéen ñi seetaan ak ñun ñu nekk ci plateau bi parce que euh, marqué nañu bëri ah dëkk boo dem reprendre nañu ko Sénégal itam reprendre nañu ko alors. Euh, oui donc donc euh, dama bëgg ci profiter aussi. Ah ah. am na ñoo xam ne nekkuñu ci plateau bi. waaw te ñu ngi participer ci émission bi. ah oui ah oui docteur Massamba Gueye. ah oui ah vraiment il nous wax non seulement li mu def ci vendredi. Mhm. mais télé bi mooy comme ni nga wax. Mhm. lépp lu ci dëng wala lu ñu kii de grand bi woo na eh, woo ma wax ñu tegaat <laughs> fàtte ko. waaw waaw mais ñooñu c'est des gens. maa ngi ci doon ñëw sax damaa def sama liste. maa ngi mel ni ku yore euh, ab kayitu tàggee parce que dama naroon njëkkee euh, équipe technique bi la gërëm sànq mais aussi am na ay stagiaires yoo xamante ni dañu rejoindre ci équipe bu yeewu leen bu yàggul muy Frédéric Sarr ak euh, Ndiaga Fall Ndiaga sama classe de guerre la aussi et puis Monty Monty qui nous fatigue tous les matins c'est-à-dire moom dafay bañ émission bi. tardé il est laid il est laid il est laid c'est laid <laughs> Monty on te remercie télévision bu mag toll rek euh, ñun itam ñu toll fa donte euh, des fois dañuy xeeb suñu bopp Sénégal ah, mais tey fu CNN toll wala euh, TF1 toll defe naa TFM war na faa mun a toll donc Monty ñu ngi koy gërëm Babacar itam ñu ngi ñu koy gërëm bu baax ah, moom ab ab taalibe la mais day xëy fajar jàpp ci c'est technicien bu nekk ak ñun maquilleuse yi itam kenn fàttewu leen di gërëm tam bu baax ñoom oustaz Pape Anne Eumane Mbaye Garmi ak euh, ki nga xam ni mooy docteur Massamba Gueye euh, ñu am na ñeneen ñu ñu fàtte ah. sama patron bu mag bi. waaw kooku kooku après la kooku kooku sama ngërëm euh, ci ci ci ci kanam la Ndiaga il est exceptionnel ah comme li Bessel di wax Bessel saa yu waxee ci Ndiaga day jooy day saan <laughs> waaye ñun tamit da nga ñëw ëppale ay rongoñ rek ah bu doon suñu sago waaye kon ñu euh, jooy bis bu jot dañu koy parce que dafa bokk ak ñun idée wu télé ça je le je le dis tout bokk ak ñun rêve wu euh, bi ñu am ci télévision donc Ndiaga ñu ngi koy gërëm bu baax ak équipe bu télévision Futurs Médias yëpp on se rend toujours que saa yi yeewu leen jeexee da ngeen di gis muy administration muy collègue yi nekk ci yeneen émission yi muy techniciens yi ñëppay daw si ñëw ci plateau bi comme quoi yéen ñi seetaan ni ngeen bëggee yeewu leen noonu la équipe euh, bi liggéey ci télévision Futur Média bëggee yeewu leen. Ah, di leen di ñaanal at bu at bu happy. yokkal la aussi. yokkal yokkal je pense que yàlla waroon nga ci wax. aussi mooy sponsor yi. Ah, ah. nga xam ne ñoo tax émission bi nekk. c'est important alors sponsors yi surtout. Euh, ren par exemple on a eu euh, on a eu Huawei euh, Kulim Dioum on a eu Crédit Solidaire Afrique Kulim Dioum on a eu Lobb Gas Mam Diara on a eu Sofiex. qui nous accompagné ci cuisine bi on a eu waa waa Mayor ak ñeneen ak ñeneen peut-être Kulim Dioum. waaye nag mën ngeen am waa. Huawei. Gambia Bird. Gambia Bird wax nga dëgg Gambia Bird waaye kii ko dal Gambia Bird ñoom tamit euh, amoon nañu euh, euh, nu ñu demee woon ak ñun donc ñu ngi ñaan itam ci 2015 bi il faut ngeen teel a contacter service commercial bu télévision Futur Média comme ça ngeen mën a teel a am place su sponsor leader ci yeewu leen bi parce que xëccoo na fi ñu tollu tembe donc ñu ngi leen di xaar bu baax a baax a baax 9 cinquante une balaa ñu ñëw surprise bi on propose tout de suite notre happy. suñu happy ah est-ce que mën nañ ci dem léegi nii comme ça on va danser ci happy est que a mën na ñëw happy happy happy happy happy Pape Samba Thiam na happy ñëw avec la musique ici sur le plateau voilà bon ben c'est ça ah at bu happy lañ leen di euh, ñaanal. faites la fête chez vous ah ñun lii la ñu bëgg tey euh, toute la journée comme ça ngeen mën a béggee grâce ak télévision Futur Média je rappelle que euh, yu lu bëri ci émission yi fii la ñu koy defee tey euh, man nag tey du ma xajal kenn. las image. micro micro bi rek laay guufaan. Euh, euh, ba minuit je a là. Euh, pour vous accompagner alors am na image boo xamante ni surprise la quand même mm-hmm. ah cher ci année bi je pense que ci li ñu gën a marqué euh, ci biir yeewu leen la bokk hormis people yeeg seen yëfu dof daal plastique yi en mode bu Pharrell Williams côté musique ak tam Pape Birahim ma doon seet ci insolite et buzz web bi nit ñëpp adopté actuellement mais y' aussi le fantôme de notre fameux poulet vous vous rappelez de lui sunu ginaar bi ñu rayoon lekk ko. voilà ginaar gi ginaar gi ndeysaan dee rek. Oh. léegi c'est son fantôme nag. oh là mooy ñëw ci fin d'année bi souhaité ñu bonne heureuse année parce tamit fi la toogoon mag bu wax lu amul mu reetaan <laughs> ñàkk kersa ba mel ni egg parce que suñu ginaar gii quand même daf ñu marqué ah. il faut rappeler que dañoo xëy rek dem yendu kër buuba yaasa ko. yaasa ko lekk voilà donc ñu ngi koy rendre hommage. on aurait bien aimé jeexal 2014 ah, ak moom suñu ginaar gi ngay njëkk a dégg. Ah, euh, bu ñu dee commencé yeewu leen. <laughs> et puis beneen bi mooy ratatati rek nga xamante ni euh, ça a marqué aussi euh, téléspectateurs yi yeewu leen. Euh, finalement bokk na ci compilation boo xamante ni di ngeen am intégralité wu ratatatirek ratatatirek ratatatirek dimbali ma ratatatirek ratatatirek ratatati ci am bëri na donc ratatati mu ngi bokk ci euh, compilation buy génn. ci waaw euh, ci ci ci. am morceau bu nekk tube te génnagul moom doy ah. <laughs> album bi. ay tube rek ci. ay tube rek a ci nekk je vous le promets. je vous le promets. am selling yi mais. voilà et puis c'est mënu leen gis euh, équipe technique bi mais tey xam naa seen costume yi dañu ko àbb tonton Mac en costume Pape Samba Thiam en costume euh, franchement petit Pape Lam le photographe Pape Lam photographe sama xarit en costume Gomis en blouson euh, Khadija Dafé toujours mën a sañse Abdou Aziz Soumaré ñu ngi lay gërëm bu baax sëñ Khadim moom itam lakkal nañu ko torop defoo west waaye tubaarkàlla li nga def baax na. dëgg la ci patata vestu. le le meilleur moom tamit euh, def na. <laughs> et puis. Euh, euh, mami yow gisoo sañse mami de Pape Cheikh. bu décor moom tamit def na veste parce que dañu exiger tey 31 décembre bi képp kuy liggéey ci télé bi nga def west euh, ñu ngi ñëwaat nag ci kanama ah, parce que dañ leen di gunge toute la journée ci télé bi wareef ci kanam ak sama yaay Adja Degen Chimère moom itam ñu ngi koy ñaanal 2015 bu neex dàq ci atam yëpp yàlla bàyyi ko suñu kanam ndax taxawaayam dëgg-dëgg gënal nañu ñu ngi gërëm suñu xarit yëpp ci ànd bi ak fidélité bi yeewu nag am yu bëri yoo xamante ni ñu ngi koy préparé mais xaar xaar ma rek Pache est ce que d' gis ngeen suñu patron lu mu sañse. waaw Bouba ah, ah. gis ngeen lu mu sañse papa Matt Gueye ji rek lay euh, def de papillon bi. Ah, la veste bi moom. Hmm. <laughs> waaw c'est beau. <laughs> merci maman déema ko déema ko ko nëb yi de ku ko décortiquer. Hmm. di xam lu. Hmm. man xam naa. waaw léegi verset bi tamit du na torop de. waaw macha allah. waaw léegi euh, léegi léegi yeewu leen bi waaw ayca. yeewu leen moom moom laa lay wax. Mhm. Euh, en général euh, télévision Futurs Médias je pense que 2014 bi. Mhm. dañ ciy sant yàlla. Mhm. di ñaan dugg ci 2015 bi. mais li ñu defagum. vraiment pour man. mën nañu dem pour gën a sori te incha allah di dinañ fa egg donc mooy ñaax ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe bi yëpp. coow li lu mu munti bëri des fois nga liir lii dégg lii dugg na fii génn fii. nañu xam ni euh, nit ñi ñoo tax a jóg. te fi ñuy egg ni mu ne ñu ko duble incha allah ci 2015 bi donc na ñëpp préparé wu. pour que 2015 soit beneen année de exceptionnelle pour euh, pour pour le groupe. en voilà. en général. jeex na kon euh, ñu ngi gërëm ñëpp merci à tous merci mes amours ah. vous êtes oh, mes amours ah. man dama leen man dama bu Dija. tamit xam nga yéen a tax. sama boli bi di di jax. je vous adore. Euh, dans quelques minutes. ñu jàll ci euh, journal bi et puis après journal bi je reviens toute la journée ci télé bi. on vous ah. adore les gars parce que tous les ah. matins dañuy lancer ay sujets de discussion. vous êtes là à discuter avec nous. Ah. vous passez euh, la journée avec nous donc merci à vous vous êtes 40 000 à nous suivre vraiment chapeau. ex ba el ba doole damaa sedd moo tax ma jiital <laughs> oh <laughs> allez le temps le temps ñu jël. ñu jël suñu photo temps bi ñuy def dem ci journal bi. waaw dañuy dem ci journal. d' accord ay waay bi damay xuloo ak ex 2015 dama la mel ni yow rek léegi Pape Cheikh. allez voici le journal juste après le journal on se retrouve tey ñun ñooy gunge sénégalais yi ci bis bi mujj ci 2014 à tout à l'heure votre fidélité, rebonjour à tous. Tentative de coup d'État en Gambie, quatre putschistes présumés euh, sont euh, morts, quatre autres entre les mains euh, de, des pro-Djamé. C'est une annonce du président gambien sur sa page Facebook. que les personnes à ce complot seront traduites en L'avion du président Jammeh attendu en Gambie après un bref séjour à Abu Dhabi. Hier, il a fait une escale à N'Djamena. Affaire euh, Habré euh, et son avocat, Maître El Hadj Diouf, parle de complot orchestré pour jeter le discrédit euh, sur sa personne. Maître El Hadj Diouf qualifie de mensonge l'information selon laquelle sa rencontre avec Idriss Déby a été démarchée par les tenants du pouvoir Ibrahim Khan Mardien. Maître la Hadji et Hissène Habré, le divorce est consommé. Face à la presse, l'avocat a fustigé le communiqué de son client qui, à ses n'a autre objectif que de le discréditer après sa rencontre avec Idriss Déby. Du mensonge pur, c'est en ces termes que la robe noire se prononce sur cette affaire. qui m'ont démarché pour que j'aille euh, euh, rencontré Déby, c'est un mensonge grotesque. ce communiqué est un communiqué de comptabilité et de mensonge je suis déçu moi qui croyais bien faire Maître El après 14 ans de service pour défendre la cause de l'ex-homme fort de N'Djamena se dit aujourd'hui victime de trahison de la part de Habré mais tout ce que je fais depuis 14 ans billahi wallahi taalahi je le jure sur le Coran c'est dans l'intérêt d'Habré jusqu'y compris la rencontre entre El Hadj Diouf et Déby. Je suis très surpris par la trahison dont aujourd'hui je suis victime. J'ai tout risqué, même devant les forces de l'ordre, même devant les policiers pour lui. J'étais dans un pays en guerre, le Soudan, pour le défendre. Il y avait était là tous les jours, plus riche que Déby, il me rencontrer. J'ai refusé parce que je tapais sur Kadhafi. Le député avocat précise qu'il n'a jamais posé d'acte à l'encontre des intérêts de son client. Il déclare en outre avoir tenté de prévenir Hissène Habré avant son face-à-face -face avec le président Déby, mais en vain. Il dit toutefois avoir informé l'épouse de son client. Je vous le disais tantôt, François Nouroumbaï euh, sera entendu, sera pour moi par le doyen des juges après euh, cette diagne. Il par euh, Tombon Wali dans le meurtre de Bassirou euh, euh, de 26 ans, a été, est un policier. tout cas, sa famille réclame son innocence. Neuf mois d'arriérés de salaire, c'est ce que le personnel de l'entreprise euh, génie civil euh, concasseur euh, basalte de, du Ndiambour. Hier, en sit-in, ils dénoncent l'attitude du fils de leur patron. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, parlons de ce dossier consacré au fait de 31 décembre. Bal poussière, choléra, des formes de soirées qui ont fait leur époque. Aujourd'hui, presque disparues, ces soirées de dansantes, des concerts rythmes. Le Dakar by d'aujourd'hui, l'occasion des fêtes de euh, souvenirs, en tout cas des nostalgiques, reviennent sur ces euh, soirées euh, qui ont marqué leur époque. Aminata Marisso, reportage. Youssou Kanté, un jeune habitant Grand un quartier dans Dakar. Pour les fêtes de fin d'année, le jeune homme compte aller en boîte avec sa copine. Particulièrement, j'aimerais partir euh, en boîte avec ma copine, sans stress, et je vais avec elle. À la différence du jeune Youssou, le vieux Baladiassé, la quarantaine révolue, il se souvient d'un air nostalgique des soirées Koledra organisées jadis à l'occasion des fêtes de fin d'année. À l'époque, nous organisions des soirées Koledra. Nous cotisons 2000 francs ou 2500 francs. La somme servait à la collation et à l'animation. Malheureusement, les temps actuels ne permettent plus de fêter de la sorte. boobu jamono moom si ay 1500 2000 nga daan cotiser. deux générations deux manières différentes de fêter. D'habitude, je me retrouve quelque part avec des amis. Nous organisons le réveillon à la maison. À défaut de cela, à la soirée du décembre, nous faisons le tour de quelques restaurants. bal poussière boo ko déggee xeetu dara la rek mooy li ma dem wax sànq. Bal poussière, c'est une sorte de cholédéra. Il fallait vraiment danser jusqu'à ce que la poussière t'enveloppe. C'est ce qui faisait son charme. Et même les chaussures que la personne porte étaient recouvertes de poussière. doo demee sax di nga dem ba sa kër xëppoo ndox wala sanguwaat mais soj dikkal la. 2014 tire à sa fin, 2015 arrive, un nouvel an à fêter, quelle que soit la génération. Aminata Mbarisso, merci. Merci également euh, à vous, amis téléspectateurs, de votre euh, fidélité. Bonne suite des programmes sur la Télé Futur Média. Rendez-vous 13h pour le JT en Wolof. Merci. jërë ngeen jëf door ci yéen kaay ñu xëyandal ak observateur mi xëy dikk ci loo aju ci coup bi nga xam ne doon nañ ko wàcc ca diwaanu Gambie te yëf yi mujj ta am observateur xëy ñu nettali coup d'état boobee ñu doon séntu ca Gambie lan moo ko waral ak it lan moo tax yëf yi amul en tout cas ñu xamal moo di benn waay boo xam ne mi ngi wuyu ci turu Lamine Sané bokk ci commandant yi nga xamante ne ji ku yàgg Gambie la Gambie xam na ko moom it xam na waa nekk na ci l'armée bu Gambie dem na sax ba am ci galon colonel ginnaaw bi mu amee jafe-jafe ak Yaya Jammeh ci la dem États-Unis toog fa moom waa jooje moo dellu si ànd ak ñeneen nit ñoo xamante ne ji ñii ña ngi États-Unis ña ca des nekk ca diwaanu Allemagne ay doomu Gambie lañu yu fare ci diaspora ne ji moo di Yaya Jammeh waaye yëf yi antu li côté antu observateur nañu moo di dañu waxtaan ak ay cadre yu nekk ci l'armée bu Gambie ba juboo ci ñu jàppaleen ci coup bi ba ñu demee ba au dernier moment nag ca ñi nga xamante ne ñooy yooyu les di génn kon ci boobu le coup d'état moom moo foireel affaire bi populaire xëy ci dellu siwaat nañu en li nga xamante ne ji daal mën nañ ko cee gis moo di Yaya Jammeh moom nee na coup d'état bi euh, Sénégal la ci tuumaal ndax ñi ñëwoon pour coup d'état ko Sénégal la ñu jaar ba tey euh, populaire nañu lu aju ci ñi doon coup d'état am na ci ñetti soldats yoo xam ne faatu nañu ci te sax ci ñooñee nee nañu Lamine Sané mi jiite woon coup d'état bi daa bokk kon ci ñi faatu yéen kay bi nga xamante ne ji moom moo di euh, populaire noonee la ca dem laas nañu li leer ba leer daal moo di diwaanu Gambie moom démb ngoon tàngoon na jër gis-gisu las la ak it coup d'état bi nga xamante ne ñoo ngi ko fi doon wàcc réew mi quotidien nañu waaye nag nañu sentu ndax njiitu réewum Gambie di Yaya Jammeh ki nga xamante ne ji moo di réewum Sénégal moom la joxari baaraamu tuuma dugal na ko ci yëf yi Yaya Jammeh accuse le Sénégal ndax nee na ki nga xamante ne ji moo ko coup d'état dañ ko tere woon Gambie mënatu fa woon dugg bi muy ñëw Sénégal la jaar ngir dem Gambie Yaya Jammeh mi mere Sénégal ci boobu le coup d'état réew mi quotidien nañu Casamance ak jàmm ji nga xamante ne ji ñoo ngi ko fay wut bu ñu moytuwul yëfi naa xajam ndax bu jàmm eh, jàmbe mere rek Casamance kon jàmm ja du yombe noone leneen loo xamante ne ji jàmm la mais jeex na diggante la Hadji Diouf ak eh, ki mu doon défendre mu di Hissène Habré populaire xëy ñu xamal ne moom avocat bi député bi démb janoon na ak taskatu xabaar yi loolee eh, ca këram la waaye El Hadji daal nee na am na lu ko metti ci tuuma yi nga xam ne teg nañu ko ci ndoddam ne dafa dem giseek Hissène Habré giseek Idriss Déby na ko bi nag fenni kese la dara du ci dëgg nee na euh, moo kiliyaanam ba woon di Hissène Habré yàlla dina leen atte ndax yàlla mooy juge bi mat juge ci biir observateur ma nga cay wax ne Hissène Habré nit la ku metti El Hadj Diouf nee bañ nag bu boo ko liggéeyale sax pour mu fay la lam la war a fay dëgg du ko def moom nag pare na ci ndax ba gars génne communiqué ci ko génnee ci boobi le dossier moo tax noppi na ci du moom moo ci waxaat ñu wax ci meneen mbir mu di lan euh, ki nga ne ji moo di baarataal baarataal da caa bokk journal bi nañu demoon na kon ngir di leeral loolee waaye daanaka baarataal la fa nekk woon moo di di defante di Karim Wade baarataal solde say avec Karim Wade Walfadjri feelu ko moom it même titre bi la dikkee baarataal solde say avec Karim Wade ci gàttal da doon ñëw pour waroon a témoin mais daanaka daal euh, fayanto Karim Wade loolee kon la fa nekkee woon laas nañu du loolu rek am na leneen lu mu fa def moo di ay révélation aju ci anam yi ñu taxawalee société bi di Dalia SA Baratal def na ay révélation ca kanamu cour répression enrichissement illicite jëmee ci Karim Wade bàyyi Karim Wade ngi nii kan Abdoulaye Wade yéen bi di grand place xëy ci moom nañu jamono ji nag daa mel ne góor gi moom riggal na ndax daal bañ na ko ba plainte bi nga xam ne ne woon na sax da koy plainte Macky Sall moom président la euh, président euh, dellu na ci gannaaw nee kon dootu plainte ki nga xamante ne ji moom moo di Macky Sall loolee euh, yéenekaay bi moo ñu ko wax ma wax ci wàllu tàggat yaram ak waa sport mi ne ñu Alain Giresse tontu na Demba Ba Demba Ba mi génnoon doon ñaaw loolu tax sélectionné wuñu ko Alain Giresse tontu na ko mi ngi ko tontoo ci benn site bu nekk ci Algérie ba noppi indi ay chiffres tegal ko lan la ko wax dëgg-dëgg stade na ñu jarta yàggal Alain Giresse nee na gagné naa ñeenti match yoo xam ne Demba Ba bokku ci kon Demba Ba ñëw gisul lu mu mën a yàq kon ci mbirum équipe nationale bu euh, Sénégal Tange Tandian diggam ak euh, ndey Ndack mu di Ndack Touré yéen a kaay bi di observateur nañu gannaaw ba ko man kan top modèle bi porté plainte ndax nee na Tange da koo da koo sosal euh, tribunal àtte na démb la mu wax moo di Tange danañ ko tëj juróom-benni weeri kaso yamu ca de juróomi million yoo xam ne da koy dampe top modèle bi mu di Ndack Touré observateur moo ñu ko wax ba ginnaaw suba jàmm.